gi di Rewmi Quotidien waaye tamit démb lu mu yëkkul doyen de juge Maham Diallo daf koo fàtte nee na ko baax na moom Ousmane Sonko nee na dina résister moom jiitul Pastef ci journal bi di Rewmi Quotidien nee na li xewoon ci mars 2021 ba am lu toll ci fukk ak ñeent ñàkk ci seen bakkana ba muy tuule li nga xam ne moo nar a xewaat loole muy gën a jégg dayo ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien ak L'Observateur Ousmane Sonko nee na schéma bi nga xam ne moom la avocat bii waxoon di maître Dior Diagne ci la yi tego ndax moom maître Dior Diagne ginnaaw ab message boo xam ne daf ko yónnee woon wax ci ne Ousmane bu leen ko jël di ko dugal ci kaso bi loolee baaxul ci réew mi baaxul ci Sénégal nañu ko jël yóbbu ko tribunal maanaam foofee ñu mën a yàq deram ba dutul dara ci dëkk bi Ousmane Sonko nee na loolee maanaam ci la gars yi tego waaye nag du ñu leen ko yombalal benn yoon Ousmane Sonko nee na askanu Sénégal la bàyyee boppam moom jiitul Pastef journal bi nee na gëmul nag li nga xam ne mooy justice justice bi ndax dafay xalaat ne bu demee mën nañu ko jaarale fi xam ne fa la ñu jaarale woon Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade yéen kaay gi de Le Quotidien yor yora moom jiitul Pastef di Ousmane Sonko nee na dina résister ndax nee na bi mu demee bureau Maham Diallo doyen des juges fekk ko mu bànn loxo bi def saafara ci fi xam ne mooy bureau bi Sonko nee na ci la ay avocat ma na kii jël na mbir mi yóbbu na ko chambre criminelle bu yàgg yàgg ndax ñu daal di koy tànn maanaam wàllum mbokk la ak wàllum xeet yéen kay gi di réew di quotidien ñu xëy fekk fa maître El Hadji Diouf avocat Adji Sarr nee na Ousmane Sonko moom su dee deful dara lan lay ragal ci procès yéen kay gi di source lu jëm ci wàllum Ousmane Sonko bis bu ñu demee ba war ko àtte ndax Ousmane Sonko dana dem tribunal waaw wala déet Sonko nee na loolee du ci àddoogu na ndax mbir mi mbirum politique la yéen kay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk ko fa moom njiitul Pastef nee na jusqu'à la fin de ma vie je résisterai te nag nee na constitution bi ci boppam moo ko ko may yéenekaay gi di Les Échos nee na Ousmane Sonko maa ngi tàllal loxo askanu Sénégal ndax nee na askan wi ginnaaw yàlla yéen laa yaakaar moom njiitul Pastef nee na am na magistrat yoo xam ne dañoo jubadi ñoo yàq réew mi yéenekaay gi di Le Quotidien Ousmane Sonko nee na dossier bi dossier politique la politique moo koy lijjanti yéenekaay gi di 24 heures moom njiitul Pastef nee na rapport interne bu gendarmerie loolee rek doyoon na ak docteur Alfousseyni Gaye mi nga xam ne moo def certificat médical bi Bassirou Gueye Ousmane Sonko tudd na ko ci mbir mi ndax nee na mooy ndeyi mbir liggéey Walfadjri Ousmane Sonko nee na kenn ku nekk na jël ay responsabilité ma yéene kaay gii di Le Quotidien ñu xëy fekk fa maître George Diagne nee na Ousmane Sonko li mu koy waxal dara du ci dëgg yéene kaay gii di Vox ñu xëy fekk fa maître El Hadji Diouf nee na Sonko est dangereux pour ce pays c'est un malade kàddu maître El Hadji Diouf la nee na baaxul ci réew mi nee na nag ñi nga xam ne ñooy xale yi ñoo war a yeewu xale yi nga xam ne ñoo topp Sonko kadu maître El Hadji Diouf la ma ngi ci Vox Populi yéene kaay gii di L'Observateur Ousmane Sonko nee na en tout cas li gudd gàtt mooy ñun danañu résister loole moom na leer ñëpp te nag li fi xewoon lu ko raw mën na fee xewaata yéen a kaay gi dee enquête nee na Ousmane Sonko moom dan nay annoncé ay activité politique am ndax nee na méga meeting dana ko amal ca ma Massar dimanche te lii nga xam ne ñii ñoo ngi ci ay caaxaan la Sénégal yi sonn nañu ba mara détaillé lépp yokk ci réew mi rapport Cour des comptes bi ñu nekk fii di wax loo xam ne waxi kasaw kasaw la moom jiitul Pastef di Ousmane Sonko nee na li nga xam ne moo fi xewoon ci mars 2021 Serigne Mountakha ñaanoon na leen ñu daal di bàyyi waaye ba léegi Macky Sall ma ngi continuer di def lu ko neex yéen a titre de l'info Ousmane Sonko nee na nag gars yi ñoom jël nekk ci réew mi bëgg a yi a li nga xam ne maanaam mooy yoon Serigne Mortala Mbacke mu Serigne Abdoulaye wax Macky na ko ñi nga xam ne ñoom nga wuutu ci réew mi maanaam jàmm la ñu fi bàyyi yow tam bàyyi fi jàmm yéen a kaay gi di réew mi quotidien bàyyi mbir moomee wax ci HLM 4 askan wa nga xam ne ñoo fay yeewoo jamono ji sonn nañ ba mara de tali ndax ndox mu bon mi nga xam ne mooy bale sa égout ya moo leen sonal xet gu bon koo xam ne mara détail yi ñoom nag waa ONAS la ñu tuumal yéen kaay gi du source nee na Cheikh Yérim Seck ginnaaw bi mu génnee liifuram bi maanaam plainte yaa ngi mel ni tulleeg male ndax am na ku ñuy wax Cheikh Tidiane Ndiaye mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon directeur général bu AAS moom nag daal nay porte plainte Cheikh Yérim Seck Mame Makhtar Gueye nee na Cheikh Yérim Seck yàq na réputation ma yéen kaay wal di ñu xëy fekk fa professeur Maïssa Babou dib économiste daan wax ne gerew bii nga xam ne transporteurs yi gerew nañu ko ay milliards la ci Sénégal ñàkk yéen kaay gi du source nee na secrétariat internationale bu parti socialiste ni ki démb na tàngoon na jër Abdoulaye Wilane la mu doon wax ci wàllum ñetteelu mandat démb laajaan nañ ko ko waaye nag nee na loolee du débat bi maanaam daw na génn ca journal bi nee na waa parti socialiste ñoom ñoo ko recadré Abdoulaye Wilane nag ci Vox Populi nee na la mu waxoon bu doon lu ñuy waxaat la daf koy waxaat yéen kaay gi de la Tribune nee na Idrissa Seck ak Ba jamono ji kenn ku nekk ma ngi def ay dëbbal dëbbal ngir nag bu Macky Sall nekkul candidat maanaam